xandax xandax su ngeen koy dégg mooy am am ay pax pax yu ñu gas yonentu sallallahu alayhi wasallam dafa toog jëmmi bës rek mook saxaaba yi ndeke euh, yahoot yi Medina waxtaan nañoo Quraysh ak arab yi ba ñu formé benn coalition boo xam ne kenn xamul nu mu toll parce que booba sonn nañ ci moom ñu nañ ko fexeel rek rey ko benn yoon mu jeex moo koy saxaabaam waaye pexe mi nag moom bu kenn yëg te booba yahudi kat ñoom ñu ngi am pacte ak yonent bi sallallahu alayhi waaye ñu war ko dem booloo ak eh, yéeféeri arab yi Quraysh ak yeneen dëkk yi Oh, So, bi nga xamee ne eh, yëg nañ ne am na luy xew fekk na booba ñë yéeféer yi ñëw nañ ba gaw dëkk bi maanaam ñëw nañu ba encercler Medina xamuñu nu ñuy def parce que dañ leen bett ku la bett mën la mm-hmm. yonentu sallallahu alayhi nag daal di wax dajale saxaaba yi ñu diisoo situation bi lan lañ ci war a def ku nekk joxe sa xalaat Salman al Farisi daal di ne ah lii de ñun ca Faris bu ñu am bu ñu dalaan dañuy gas lu ñuy tuddee alxandaq maanaam dañuy gas dëkk bi ba nga xam ne ñoom kàmb yi dina rëy ba duñ mën a traversé yegg si ci ñun su ko defee ñun on pourra se protéger bu fekkee ne xeex kii la ñu xeex yonentu <laughs> ne loolu mooy xalaat bi eh, moo tax gis nga jàkk ji ñu tuddee ko jaamiul xandaq jàkkay xandaq dégg nga loolu fii la amee woon. waaw nga xamee ne nag ñu ngi gas. mu nekk nag lu métti ndax booba amu amuñu doole. Euh, di ngay gis ñoo xam ne ñaari fan lekkuñu ñi ñetti fan lekkuñu dañ daan booba dañoo xiif ba ji jël xeer takk seen kii yonentu salaas am na ko ko wan biiram xeer yonentu wan yonentu daal di wuññi biiram ne ko sama biir ñetti xeer moo leen gënoon a xiif ndax moo leen gën a moo moo leen gënoon ñeme xiif moo leen ko doon gën a defit maanaam du loon général boo xam ne dafay lekk ay soldaaram di xeexi wala ay soldaaram di xiif bu dee koor moo leen ko dàq bu dee jaamu yàlla moo leen ba dàq bu dee xeexit mooy jiitu moo tax ca Xunayn bi nga xamee ne saxaaba yi bari nañu ba wóolu seen doole yàlla nattu leen dekete ñi ñu war a dajeel ñu ngi waaf ci biir xunt yi naka lañu romb rek ñu commencé leen di fet ba ñoom ñëpp ñu dispersé yonentu sallallahu alayhi wa ci fitam wu rëy wi moom mu ngi xuus jëm ci noon yi ki téye euh, baax euh, lahabu euh, warwaayam bi mu ngi koy téye nii pour yonentu bi yéexantalu nee na yonentu naan nii affaire bi di daw muy dem jëm ci jëm ci noon yi naan leen ana nabiyu la kadib ana ibnu abdul muttalib man maay yonentu yàlla bi te loolu du ay nar neew ci man maay doomi abdul muttalib daal na ne Abbas woowal waa Badar woowal ñooñ bayat Ridwan Abbas commencé woote ñëpp fekk si ko maanaam mos a daw yonent mos a wan noonu gannaaw sallallahu alayhi wa sallam bi ñuy gas nag yonentu sallallahu alayhi wa sallam am na xeer woo xam ne tën a saxaaba yi ñu woo mu ñëw bi mu jëlee gasukaay bi bi mu dóoree dañoo gis benn leer muy génn ñu dóoraat mu gis leer saa yu leer génnee rek mu ngi leen di wan ne yàlla ngi may wan bés a ngi ñëw da ngeen i faris da ngeen moomi ruum maanaam yooyu ñoo doon empire yi gënoon a rëy ci jamono naafeq yi commencé daal Mohamed daal moo neex rek mu ngi mel ni koo xam ne ni yow sa néegul ñax bi mu ngi taw amoo fa dëkk nga naan di nga moom ndakaar wala di nga moomi Amérique ñoom loolu lañ doon wax waaye ñu dund gis nañ dem nañ ba moom Faris dem nañ ba moomi Ruum loolu fii la xewe woon yàlla sottal pexe mi mi nga xam ne moom la yonantu def dégg nga ñi nga xam ne ñoo attaqué si woon yàlla wàccee ngelaw ci ñoom ñi ci jot a xeex ñu rey leen euh, fii nga xam ne nag lañ nekkoon def fi seen i jàkka yu ñu daan jullee ak yu ñu daan naafila jàkk yooyu tey ñoom lañ defaraat benn par benn ñu leen tuddee sabu masajid mm. sabu mooy juróom-ñaar mm. masajid mooy plurielu masjid mm-hmm. sabu masajid mooy de seven masjid waaye bu ñu xoolee nag juróom benn moo fi nekk turu juróom-ñaar yu moo siiw te juróom-benn jàkka juróom-benn jàkka ñoo fi nekk bi ñuy tuddee masjidul fatih ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne fa la daan jullee lu tax ñu koy tuddee masjidul fatih mooy fatih mooy ouverture mooy victoire dégg nga boo boo boo rombee jàkka jooyu ñu ne nga toog ci masjidu Salman Farisi parce que Salman moom moo joxe pexe bi moo joxe woon maanaam euh, pexe bi nga xam ne solution bi nga xam ne moom la ñu war a def dégg nga teg ci masjidu Aboubacar Seydina Aboubacar te teg ci masjidu Omar ibn al-Khattab Seydina Omar te teg ci masjidu Ali ibn Abi Talib Seydina Ali ak masjidu Fatimatu Zahra juróom benn jàkk yooyu jàkk yu ndaw yi yu ndaw ndawaan yi ngeen gis ñoom lañ leen di tuddee donc buñ fi ñëwaat tamit mu ngi ñuy fàttali yonontu salaay salaam fu mu jaar ak saxaabaam yi coono yi ñu jànkuwanteeg pour dina taxaw ba tey ñun ñii ñu ñëw fii ku nekk ñun lekk nañ ba dañ fa bàyyi lekk ga ñoom amuñoon lekk bi leen at ñëpp di attaqué c'est-à-dire que boo xam ne yow adduna yëpp a ngi lay attaqué nga def leen face ba am ndam ci ñoom yow nga nekk njabootam bu sa daal réeree sax nga yóbbu kooku moo toog ko ndono kon bu ñu ñëwaat fii loolu la ñuy fàttali te yëfi